les communications léegi yow foofu la ko bëgg a wax foofu. il faut bëgg wax mooy semaine bi dañ ko tàmbaleeg lundi. Mhm. lundi le quatorze. Mhm. mu nekkoon date bu historique te naa expliqué après lu mu date mhm. mu date historique parce que tout simplement. li nga Ousmane Sonko jaay ko de deux mille quatorze à deux mille vingt quatre. le projet. xam nga Ablaye Wade sax nit ñi xamuñu sax programme am nu mu tudd bala ko bokk kenn jàpp ko. soppi ah, ah soppi kii moo fi ñëw. Mm. Euh, Macky Sall moo ñëw andi. yoonu yokkute programme yoonu yokkute. après kii déwén PSE e. mais bi pendant depuis depuis la naissance du Pastef mm-hmm. Ousmane Sonko a toujours expliqué aux Sénégalais que mom dafa am le projet de développer le Sénégal mu dem ba nañu nañu nañu protéger le projet mu jaral len lu parce que projet bi vous bu le manam projet bi bëss bu au pouvoir waxul 2050 je suis désolé mais dafa ne pour mom bu xasee ba yegg au pouvoir rek tous vos problèmes seront réglés ñu xaar ko sept mois finalement le projet est arrivé le 14. Mhm. ñu présenté ko. Mhm. man pour man. Mhm. lu tax ma ne date waroon symbolique la. nekkatul symbole. mooy dama dama jàpp ni Ousmane Sonko dafa waroon bàyyi ñu consommer. vision Sénégal deux mille mais ñaari fan lañ ko consommer. mu mel ni il n'est pas satisfait. créer contre. def live jox un rendez-vous le 19. Mhm. alors que pour moi un mois la ñu waroon bàyyi. dara mhm. du bouger lépp ñuy discuter rek débattre autour de vision Sénégal 2050. Mhm. donc mu communiqué bu mu communiqué lancé ñaari mbir. benn bi mu une communication bi porté sur cette nécessité de démontrer la force du PASTEF une semaine avant le début de la campagne électorale Il faut poser une question def affirmation mm-hmm. que ni Ousmane Sonko a un problème avec l'ordre public mm-hmm. pourquoi il a un problème avec l'ordre public mm-hmm. dama yaakaar ni l'opposition opposition nous waroon mettre le pays campagne électorale 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 mhm. jours. L'opposition, au moment où je vous parle, respecte mhm. les délais. Mais il dit que dans ma campagne mhm. une semaine avant, c'est-à-dire le samedi 19 au lieu du samedi 26. Donc, moi, je communiquer. une communication, oui, telle mais Basirou Diomaye nous nga xamni ni ñu bari dañu japp ni monument de la renaissance au palais mhm. il est parti au front en tenue militaire mhm. parce que notre mu ni inondation yi mhm. vraiment ñu def ay ravages au passage ma ma félicité quotidien te xamni tay mo def le meilleur titre pour une fois. Euh, République quotidienne au moment où l'on parle. Mhm. foofu nag laay dugg si opposition. Mhm. résumé là parce que. waaw une une République quotidienne. waaw opposition Saloum une bi. opposition au moment où l'on parle tey am na coalition yu bëri wala ay parti politique il mhm. xam ne ñu ngi def conférence de presse. loolu yëpp nag moo tax c'est la semaine de toutes les communications la semaine bi nag waxuma la semaine bii parce que demain ne la semaine rek bàyyi ci biir mais bon, xoolee bu c'est cette semaine so euh, finissante et la semaine qui va démarrer mm-hmm. parce que la semaine bii di ñëw tamit y aura beaucoup de communication politique mm-hmm. li mooy ok alors les ñu ñu ñu ñëw ci euh, conducteur bi conducteur bi avons dañuy commencer par euh, inondation y a une inondation yi